asbillahi min seytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billahi al-azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi dini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin man sëñ Djily Gaye maa ngi leen di nuyu bu baax baax baax sëñ Djily Gaye ñëpp xam ni Touba la dëkk euh, juddoo Touba màgge Touba yaro Touba waaye nag mu nekkoon fii ci kër Mbay Fall ginnaaw bi léegi maa ngi fii sag mbaaw ku soxla maa ngi sag mbaaw maa ngi liggéey la ma daan liggéey euh, ci wàllu ñaan yi ak ci wàllu faj mi dañuy faj ay garab ndoxum siti ak garab yi hémorroïde ak koo xam si ni euh, cat da koo jàpp ak koo xam si ni rab da koo jàpp ak yu bare bare bare bare bare bare bare ginnaaw loolu dañuy faj lu ma ne kiis ak jaaro yi nga xam si ne dañ koy liggéey jaaro yi ak ndomba yi nga xam si dañ koy liggéey ñi nga xam si ni tamit maanaam dañoo nekk bitim réew maa ngi lay wax ngi fii nii ci kër euh, Sac Mbao euh, cité Maam Siré cité Maam Siré képp ku fi ñëw ci jàkka ji rek boo laajte sëñ ji liggéey daañu la ko wan maa ngi liggéey loolu bu baax baax baax baax baax ba tey maanaam lu jëm ci wàllu gudd fan ak musulaay nit yi dañ leen di dañ leen di ñaanal ci loolu ku bëgg musulaay nit nga xam si ni maanaam dañ lay ci wàllu wàllu musulaay lu jëm ci wàllu waxteef ak maanaam cat ak lu jëm ci liggéey ak njabar ak njabar koo xam si dañ laa njabar nga xam dañ laa liggéey dañ koy faj lu jëm ci sàcc ak feeñal lu réer dañ koy faj ku ñu tëj ak ak ku ñu jàpp koo xam dañ ko jàpp wala ñu tëj ko ci lañ la def dañ laa tooñ tëj la tamit dañ la tijji insha allahu taala waaw lu jëm ci tul tamit dañ ko defar tul ko xam si ne ku bëgg tul ko xam ku ñu jëm paaka du dugg wala yu mel noonu lu jëm ci lu jëm ci maanaam wàllu wàllu wér wàllu wàllu wéru wéru xel loo xam si ne xel mu naqari lu mel ni kiis xale buy jàng examen yu mel noonu dañ koy faj lu mel ni télé koo xam ne ni dafa am euh, feebar sexuel lu mel ni télé dañ koy faj bu baax a baax a baax ñooñu li ñu xam nañu si bu baax baax wala kuñ takk xala koo xam dañaa takk xala te neexu loolu dañ koy faj li jëm ci kër tamit dañ koy def loo xam si nii wàllu kër la kër goo xam da nga bëgg ñu aaral la ko ba nga xam si nii dañ koy dañ koy dafa am jàmm dañ koy def bu baax a baax a baax ak ubbeeku mosulaayu ubbeeku dañ koy def loo ak mbir jigéen jigéen joo xam si nii maanaam dafa mënta am doom wala yu mel noonu daal koo xam si ni doom da koo jafe loolu nañ koy def ab tool koo xam si ni day bay daa xam si ni day bay ab yorub toolam euh, tool boobu mënta naat loolu tamit dañ koy saafara bu baax a baax a baax a baax baax a baax lu jën ci ñaan yàlla ay doom tamit dañ koy def koo xam si ni dafa mënta ña am doom daal loolu waxoon nañ ko ci biir waaye dañ koy waxaat ak jaay ak jënd koo xam si ni day jaay nii si place am te mënta jaral dañ koy jàppale bu baax a baax a baax a baax bayre nit ku ñuul di ko def ak bayre nit ku weex mooy bayre tubaab bi da nga def ak xorom si xam si ne day juboole da koy def bu baax a baax am na ñoo xam ne nag duñu am doom mukk duñu am doom mukk yàlla moo ko def waaw loolu tamit bala ñu ca dugg dañ koy xool ba xam ni lii nii bu ci duggee danañ ci am ndam ñu xool ko ba ban ban ba ne waaw am na loo xam si ne bu ñu ci duggee duñ ci am ndam duñ ci dugg waaye buñ ci xoolee ba xam ne danga am doom moom incha allah taala da nga am doom incha allah taala waaw lu yem ci mbëggeel ak nateel tamit dañ koy saafara loo xam si ne mbëggeel ak nateel nit ko xam ne dafa bëgg nit te mënu see jot wala yu mel noonu dañ koy saa dañ koy a xam a baax ak tamit dañ koy def boo xam si nii maanaam koo xam dafa am doomam muy ànd ak koo xam si ni néexu ko dañ koy jàppale bu baax a baax a baax a baax duñ tàggale nit ak nit nag waaye koo xam si day ànd ak sa doom ji xam ne da koo jur mu dem di ànd ak keneen koo xam si ni néexu la loolu dafa am ci bitim réew loolu dañ koy saafara bu baax a baax a baax a baax jàppandal ak taw feex loo xam si ni maanaam dafa dafa dafa dafa jafe nit ki loolu dañ ko si ñaan yàlla bu baax a baax a baax li ñuy wax lépp nag ci alxuraan nañ koy jëlee eh, ndax suñu maam ak sama baay ci laa ko doon ne woon suñu Moustapha Gaye moo sama baay si Moustapha Gaye mooy way juru moo moo moo bokk ak eh, mooy suñ tubaa mooy ndajaayam mbokkum suñ tubaa la moom si mul fati xër ñoo bokk ndey ci gàttal fay wax dañ koy def fay wax koo xam si ni ay fay da nga da nga coow loo xam si ni da nga bëgg mu fay ñu kenn muñ ko tuddati dañuy fay wax bu baax a baax ak dëddale koo xam si ni maanaam ni waxoon nañ ko laal dëddale koo xam si day ànd nit ku bon waaw wooj mu ñëw koo xam ne da dafa nekk dafa dafa dem ñu bëgg mu wooj ko mu ñëw dañ koy woojal mu ñëw kuy tukki tamit dañ koy jàppale bu baax a baax ci ba mu bañ a am lu ko naqari ak loo bëggul mu am dañ koy si jàppale bu baax a baax baax ak mbiri gone goo xam si maanaam day day feebar rek kenn xamul ko dal dañ koy jàppale bu baax a baax ak nit ku bon koo xam si nii ak lu mel ne wàllu feral xale feral ba mu fer ba mu fer dal ku soxnaam dem tamit bëgg nga bëgg mu ñëwaat dañ si jàppale bu baax a baax a baax ku jëkkëram dem tamit euh, nga bëgg mu dellusiwaat dañ koy jàppale bu baax a baax koo xam ni mën la am soxna itam dañuy jàppale bu baax baax koo xam ni soxnaam su mu am mu dem tamit loolu tamit rab moo koy def dañuy si jàppale bu baax a baax a baax baax gannaaw loolu tamit maanaam dañuy dañuy dañuy nit ki bala ñoo jëflante mu daañ xam lu nekk si moom ba noppi daañ ko xoolal waaye man du ma seet listixaar laay def damay def listixaar fanaanoo ko xam lu ne si moom ba noppi noppi doo doo ko mën a jëflante ak moom kuy tukki tamit bëgg am dara dañ koy dañ koy jox jaaro boo xam ne si nii bu demee incha allah dana am dara incha allah taala ci yàlla àndee dana am dara lam bi tamit dañ koy defar lam bi nga xam si ni man maa koy defar sama lam bi yi nga xam si koy defar bu baax a baax a baax ak ñi ko xam nañ ko ñooñu ñu ne si bitim réew waaw jaaro bi liy njëriñam mooy maanaam képp koo xam si nii maanaam dafa umu dafa umu umuté dalaa dal jaaro bi moom ngay takk nga xam dangay ubbeeku bu baax a baax a baax nga xam ni jaara bi képp koo takk tamit da ngay am maanam xéewal daal da ngay am xéewal am na ñoo xam ni tey jii maanaam luñ luñ luñ yaakaar day tas bu ñu leen digoon dara tamit day tas loolu boo takkoo jaaro bi lépp loo yaakaarati du tasati euh, jaara bi tamit njariñu jaaro bi tamit mooy lam bi dafa am jigéen ñoo xam si ne ñoo takk jaaro mu ñu koy gis daal ndax jaaro dafa xaw a mystique ku ko gis day xam ne lii ab liggéey ci nekk wala ab affaire sëriñ moo ci nekk ci nit ñi am na loo xam ñoo xam ni galaaj gi gën a mooy nga takk ko kenn du xam ni Euh, yaa ngi takk gàllaaj daal gàllaaj dañ koy nëbbu waaye duñ ko feeñal ndax am na suñu borom moo wax ci alxuraan ni am na bët boo xam si lu mu gis mu yàqu ak lu mu mën a doon dana yàqu léegi nag maanaam bu fekkee ne da nga sa gàllaaj da feeñal ñu wan ah diwle dafa takk gàllaaj moo tax ñu liggéey lam bi lam boo xam ni da koy takk waaye ni koy liggéeyee ku gis day jàpp ni lii nii euh, lu rafet la aar la rafet la la mu xaalis la bu ñu def or bu rafet boo xam ni ku ko gis day xam ni lii nii kat lam dong la waaye fekkee ne gàllaaj moo ne ci biir boo xam ni maanaam bu bu fekkee da ngay sëy fenn sa sëy ba ñooñu say goro neexuñu la dañu la neexati bu fekkente ne da ngaa liggéey da liggéey ci bureau bëgg ñu yokkal la sa salaire wala ñu yokkal sa maanaam embauché la bu baax a baax nga nekkoon ne di liggéey wala nga wala nga ngay liggéey si bureau nga xam dañ da bañ ñu dàq la loolu lam boobu kenn du la dàq insha allah taala waaw ah, bayra tubaab tamit dañ koy defar bayra boo xam si ni tubaab la lay bëgg euh, ci say mbir daal moo xam ku mën doon laa da lay jàppale bu baax a baax a ak ndomba gi ak jaaro bi ak asma ak hémorroïde ndoxum siti ak télé ak kort kortu maam kortu dañ koy def maanaam xam-xamu euh, nikku ñuul la daal dañ koy def waaw ak lu jëm ci cat ak gémmiñ jubal nikku ku jubul kooku dañ koy def bu baax a baax ku nar a të waaw lu baax bu baax a baax kaaraange kaaraange oto ak kër tamit dañ koy def koo xam si ni kaaraange ak kër ak xëccoo xëccoo nit moom daal nga ko moomoo ko ñu ngeen xëccoo incha allah buñ ci dugalee suñu loxo daañu jàppale bu baax a baax ci xëccoo boobu loo xam ni ku ku wax si yow lu bon wala mu mu bëgg laa mu bëgg laa def lu bon mu këpp ci am loolu tamit dañ koy def bu baax a baax a baax a baax. waaw lam bi ak jaaro bi ñoo bokk njariñ euh, damaa liggéey ñeenti jaaro man ñeenti jaaro laay liggéey jaaro bi nga xam si ni bu élève da koy jàng. bu élève buy jàng da koy takk boo dama koy liggéey euh, nga xam ni maanaam wàllu examen ak wàllu concours bu koy def duutu soxlaati mu ñëw ci sëriñ bi di ko ñaanloo wala dara da koy takk rek ca njàng ma ak jaaro bi nga xam ne si nii maanaam euh, maanaam musulaay la ban nag cet ak jaaro bi nga xam ne si nii maanaam képp koo xam si ni day wut loo xam si ni maanaam maanaam ba pare ñu koy xeex ku mel ne ay entrepreneur yoo xam si ni dañuy liggéey donc toujours dañu leen di xeex ñooñu ñooñu dañu am jaaro boo xam ne dañu leen di dañu leen koy jox ak beneen jaaro bu mag a mag a boo xam ne mooy jaaro bii nii nga gis nii mu am per bu xonq bi jaaro bii nii jaaro bu jaaro bu doy la boo xam si ni maanaam boo ko takkee jinne du mën ci yow dara rab du mën ci yow dara seytaane du mën ci yow dara kenn du la mën a liggéey ba jàpp la jaaro bii dafa am bi muy àndal boo xam ni da koy sangoo fukki fan ak ñaar boo sangoo fukki fan ak ñaar li nekk ci yow doo ko deñ nga doo ko takk jaaro bi boo jëloon jaaro bi takk ko yow kese nii rek du la jariñ dara waaye dafa am sangat yooyu ànd yooyu sangoo fukki fan ak ñaar boo ko sangoo ba noppi ba li ñu ci yow dañ nga doog ko takk jaara bi mu continuer di la aar dana la aar bu baax a baax te am na garanti te man sama suñ ji euh, liggéey lépp képp koo xam si ni maa ngi jëflante ak yow tamit maanaam du ma rus du ma ci am benn jafe-jafe ndax liñ ciy def luñ luñ xam la luñ maîtriser la loo xam ne si nii maanaam dañ koo jàng bu baax a baax a baax a baax a baax. déedéet man du ma seet man du ma seet man du ma seet euh, ku xam fi ma fi ma fi ma fi ma dëkk euh, ak fi ma juddoo ak fi ma yaroo ñooñu duñ seet man suñu sama bi Mbàkke moo ma jàngal ba mu neex ko ma jox ma suñu saaliwu mu yoroon ma suñu saaliwu yoroon na ma at ak juróom ci këram euh, ñun duñ seet xamuñu loolu daal te te am na loo xam ne leetar yoo xam ni mi ngi fii ci man suñu saaliwu moo ko bind yooyu dama dul wax ci ci kii ndax mbindum mag la leetar yooyu mën na fukki leetar ak yoo xam si ni sama bàyyi si la ko bindoon Euh, di ko caa wax ay lu lu yu doy waar sax yoo xam ni maanaam secret yooyu ñu ko yor bëriwuñ waaye waxi suñu saaliwu du ma ko wax si télé waaye mën naa wéetoog nit wax ko ko doomam yi xam nañ ko ci man daal man suñu Moustapha Gaye mi nga xam si ni moo soxna Maguette Gaye mu suñu soxna bu ñoo bokk ndey ak ñoom ñaar suñu Moustapha moom mooy sama baay day day ñaari suñu Moustapha Gaye suñu Moustapha Gaye Kaba Gaye mooy sama baay waaw ki loon ñaan waaw man kër suñu saaliwu laa yoroo suñu saaliwu moo may moo ma yor maag sama ñetti rakk ku ñu wax maam Balla Gaye ak Modou ñooñu ñoo ñoo ñoroon suñu soxna bi ci boppam moo ñu ko joxoon kenn joxuñu ko suñu soxna bi moo ñu yëkkati woon ñooñu ndax suñu soxna bi da soxnaam su tudd soxna Maguette Gueye yaay soxna Bali Muntaxa sama bàjjan la moo sama bàyyi bokk ndey ak bàyyi suñ muru mosu Fatim yoroon na sama bàjjan muy soxna soxna Faati Gaye soxna Faati Gaye ak soxna Maguette Gaye bii ñoo bokk ndey ak bàyyi soxna Maguette Gaye mooy euh, mooy yaayu suñ muru Abib Mbàkke sëriñu Ba Boy kooku ñëpp xam nañ ko waaw waaw ñi nga xam si ni maanaam seen xel dafa xaw a tax seen xel naqari li nga xam si ni maanaam bu buñ jàngee dañ koy fàtte kooku dañu leen si jàppale bu baax a baax a baax a baax loolu mooy kiis kiis lañ koy wax ñu bari xamuñu baatu kiis waaye kiis lañ koy wax ci daara ja nga xam ni maanaam bu ñu la ko boole ñu ci boolee xorom wala ñu boole ca lem boo ko naanee bis àllarba da nga daal di am am xel wala loo jàng du doo ko fàtte loolu tamit dañ koy jàppale nit ñi bu baax a baax baax baax kiis kiis am na kiis bu mag am na kiis bu mag man yor naa fi kii mu sekara boo xam te ni mi ngi mi ngi fi euh, li nga gis nii si ginnaaw lépp ay sekara la jóge ci mag ñu baax ñi jóge ci alaaji Malick ak Sëñ Tuubaa yu yu sekara yoo xam ni kii su mag dafa am kii su xale tamit dafa am kii su mag am na kii su xale na koo xam si ni sam xale dafa xaw a naqari daal incha allah taala boo ñëwee daan jàppale si kiis googu daal waaw tëlee macha allah dañ koy faj sakara li ñuy wax sakara su faatu sakara su faatu lañ mën a faj sakara soo xam si ne maanaam maanaam ma maanaam koo xam ne da koo judduwaale da koo judduwaale nga xam ne maanaam mus musta xam lu mel noonu musu koo xam kooku mënuñu ko faj waaye ki nga xam si ni dafa mënoon ba yàgg mënatul dara kooku bu ñëwee fii dañ ko defal traitement dañ ko defal traitement un mois six jours muy naan mun naan suñuy garab daal di wér incha allah taala ñi nga xam si ni waxoon naa ko si wàllu dëddale bi man ñi ñi nga xam si ni xale yi nga xam si ni dañoo të seen i mbokk nga xam ne si ni dañuy dem di tux wala ñuy naan sangara wala ñuy ànd ak jigéen joo xam si ni du seenum nawle wala ñuy dox lànk may jàngi ñooñu la ñuy dëddalee waaye man duma ma dëddalee nit ak nit koo xam si ni maanaam xarit ak xarit wala nga ñëw fii ni ma sama doom ji neexuma wala sa sama doom ji day ànd ak diw ci neexuma ku xale jigéen bi ki di ko bëgg a takk ci neexu ko ma dëddale leen wala dëddale ma ak diw am na ñoo xam ni si nii sax dañuy ñëw fii ni ma sama jëkkër ci boppam damaa neexut dëddale ma ak moom loolu du ma ko def loolu du ma tasub jàmbur du ma dëddale nit ak nit lu mel noonu waaye nit ki nga mën a dëddale daal mooy koo xam si ni da nga jur sa doom yar ko ba mu am 15 ans wala 20 ans nga yaakaar ko mu xëy xëy bëgg laa war wan la ginnaaw den di ànd ak ay tubaab ak i naar yooyu moom di tux ak naan ak di def lu bon loolu moom ak di sàcc loolu moom laa xam ne si nii ku ma si jokkool insha allah taala dana si jàppale bu baax ndax am nañ ci ay résultats yu bare bare bare bare bare bare bare gannaaw ba loolu tamit maanaam wàllu tukki bi tamit man mënu maa yóbbu kenn Europe waaw mënumaa yóbbu kenn Europe maanaam képp koo xam te ni dafa bëgg a tukki bañu am benn gàllankoor ca yoon wa wala nga xam ne si dafa bëgg dem bu demee bu fës yéeneen liggéey bëgg a am liggéey ci saasa rab moo yàqal nit ak cat loolu loolu koy yàqal nag dañuy fexe ba du ko du koy mën a yàqalati bu ko defee ñu jàppale ko si bu baax a baax si ndomba ga ak jaara ba nga xam si ni moom la liggéey ak bayra tubaab ba nga xam si ni tubaab bi dañ ko bëgg di ko mën a jàppale ci lu ci lu baax a baax a baax a baax waaye wàllu tukki man yóbbuwuma kenn du ëmmab ambassade awma awma awma awma awma xawma fu ñu defaree këyit waaye wàllu ñaan gi nga xam te ni mooy gàllankoor nit moom mën nañ sa jàppale bu baax a baax mën nañ la ko xoolal tamit ba xam ne si ni lépp lu ñu la wax ni la boo demee du baax du baax boo demee dana baax dana baax loolu moom am na fi ndax alxuraan lañ ko jëfandikoo te alxuraan maa farat naa fii kitaabi min say lépp a ngi ci biir waaw waaw da nga ñëw fii sax mbaaw boo jegee raay bi rek nga war si téléphone bi euh, euh, sa njiili gay euh, wala nga ñëw laajte siré ma cité mbaam siré cité Maam Siré jàkka ji boo ñëwee ba si jàkka ji nga dox jëm si raay bi raay bi ak kër gi suréewuñ boo wootee dañ gën jël si la incha allah taala waaw ku bëgg a jotee fii ci sëñ Djily Gaye day day wootee ci numéro bi 77 144 05 02 77 144 05 02 waaw li muy mujjee daal mooy maanaam euh, nit ñi euh, ñu sax si jàmm yàlla daal na sax si jàmm yàlla bu baax a baax a baax ndax jàmm yàlla moom rek ngay def ci doo ko rëcc leneen loo boo boole lu jàmm yàlla di dana ko xëy rëcc ko wala mu bàyyi ko ak ku mu mën a doon nag bu fekkente ne jigéen moo la yitteel da nga ko jigéen nga naan dem bàyyi la fi bu fekkee ne xaalis moo la yitteel xaalis du dara waaye jàmm yàlla daal laa bëgg nit ñi di ko def bu baax a baax a baax a baax a baax bañ cee boole xaj ak seen jàmm yàlla lañ wax amul kii mooy sama sëriñ amul kii mooy sama sëriñ jàmm yàlla rek laa bëgg nit ñi di ko def jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa